La parole est à notre collègue Sokhna euh, Ba numéro 2, suivi de Bakary Guiné Camara. Merci beaucoup monsieur le président asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci ak ci santam di nuyu monsieur le ministre du budget et des finances di nuyu sa collaborateur yi nga xamante ni ñoom nga àndal di wax rek ne li ñëpp wax duñ ci revenir at ñu ngi leen di ñaanal ñu ngeen di liggéey yàlla barkeel ko beneen bi on voit bien que vous faites des efforts vous et vos collaborateurs ceux des impôts et domaines de la douane et des autres euh, secteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi pour mën a recouvrer ay recettes pour mën a permettre à la population sénégalaise ñu mën a euh, def nga xamante ne moom mooy seeni besoins yi nga xam ne en matière de lekk la en matière de naan la en matière de d' électrification la ak yeneen ak yeneen monsieur le ministre may wax rek non loolu laa leen waxal parce que ñoom di transcende les régimes régime bu ñëw da leen ciy bàyyi te comme président Macky Sall def na douze ans ba pare te day dem incha rabbi keneen kuy ñëwit di Aline Mamadou bu ñëwee ànd ak ñoom bu ko defee ñu liggéey dëkk bi monsieur le ministre des finances et du budget par rapport ak le budget dañu wax ne taux de croissance euh, taux de croissance bi nga xam ne moom ngeen projeté à neuf virgule deux pour cent xëy na ñenn ñi wax nañ ci taux bi ndax di ngeen ko atteindre waaw wala déet mais ci biir atteindre boobu ngeen ko war a atteindre ci yi da ngeen a exploitation du pétrole bi da ngeen koo wax ne dernière quinzaine wala boog dernier trimestre bi lay doon au mois loolu kon ci prévision yi la bokk maintenant comme risque la te mën nañu dem ba soit ñu exploité wala ñu bañ a exploité ci yan facteur ngeen di basé pour mën a booster li nga xamante ni si moom mooy taux de croissance boobu beneen bi monsieur le ministre j'ai envie de vous poser une question c'est-à-dire qui paye l'impôt au Sénégal est-ce que ndax yi rek la nga xam ne dañu nekk yor boutique yi ndaw yi wala ñi nga xamante ni si dañu yor ay entreprise wala ñu yor ay société yoo xamante ni si ñoom it war nañoo mën a indi seen wàll te ñu wàññi li nga xamante ne si moom mooy exonération fiscale parce que loolu dina am lu bëri loo xamante ne si du ko mën a euh, compléter beneen bi monsieur le ministre muy dellu par rapport ak euh, ci li financier illicite wax ngeen ko ci document bi nee ngeen ne di ngeen ko renforcer ñuy wax foofu rek il faut que ñu gën ko mën a renforcer pour permettre suñu finance publique yi ñu mën a transparent parce que dafa am ñoo xamante ne si ci enrichissement illicite ci la ñuy dox ba recette yi nga xamante ne si moom la ñu war a am en fait pour mën a def li nga xamante ne si moom mooy résoudre les besoins des sénégalais dafay def monsieur le ministre par rapport ak euh, ñaari dëkk ngeer ngeer malal ak euh, dëkk bu ñu naan Yaral Thiam Yaral Thiam problème hôpital la ñu am émigré yi cotisé nañ ba am ko mais médecin bu ñu leen affecté pour mu ñëw foofu mooy doon problème ngeer malal problème mu ndox la ñu am forage yi li ñu war a marché dafa def bu ko defee ñu mën leen jàppale ñu def li ñu war a def président Amadou Ba nag gërëm nañ ko parce que ñu ko a défendre boobu ba léegi président Macky président Macky Sall wax dimbale leen ko wàcc sur le terrain comme ça mu mën a am résultat. <laughs> Euh, la parole est à notre collègue Bakary Dine Kama suivi de Koura Ndiaye. merci beaucoup président monsieur le ministre monsieur les collaborateurs des ministres chers collègues. nuyu naa leen monsieur le ministre moi je vais voter ce budget je de cent cinquante pour cent pour cent du financement du par rapport au crédit initial je pour les quatre milliards sept cent trente cinq millions alloués au PIDC soit quatre de plus par rapport au crédit initial pour le programme d'électrification rurale, pour le PADER 2, pour le programme national de développement de l'élevage au Sénégal. Je vais voter ce budget pour la hausse de la subvention des moteurs des pêcheurs, y compris ceux de Joal, qui passe de 2 à 4 milliards 5. Je vais voter ce budget pour le programme de modernisation du parc des piroguiers des, des pêcheurs, pour 1,2 milliard. Monsieur le ministre, j'avais voté ce budget pour plus de 1300 milliards investis à la jeunesse de ce pays. Pour le programme de désenclavement des zones de production agricole et minière, pour plus de 118 milliards. Je vais voter ce budget pour les 600 km de pistes de production par an que réalise le, la politique du président Macky Monsieur le ministre, je vais voter ce budget pour promis pour les femmes. pour DER pour les femmes. Je vais voter pour les 2 milliards 669 millions pour la valorisation du travail des Fakénibois. Je vais pour les 6 milliards alloués au DARA en plus des autres programmes de l'État du Sénégal. Monsieur le ministre, je vais voter ce budget pour l'augmentation des bourses de sécurité familiale, 52 milliards pour 2024. FAP SA, 4 milliards pour 2024. plus de 600 millions, 600 milliards pour subventionner l'énergie de la consommation d'énergie des Sénégalais. Monsieur le ministre, pour terminer, je vais voter ce budget pour le prix du kilo de l'arachide, qui passe du simple au double dans les 12 années de l'agriculture du président Macky Chers collègues, je vous donne rendez au mois de juin pour le débat d'orientation budgétaire, parce que si loi rectificative am, vive le président Je vous remercie. chers collègues. La parole est à notre collègue Courant suivi de Guy-Marie Sagnan. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nga àndal sa mbokk yu baax yi Maguette Maguette maa ngi lay nuyu sama xarit bi di nuyu Samb si ñëw nag yéemu lool tey ci bésu Moustapha Ba bi mbaa xam ngeen ni tey jii la maamam doon finis ak fina la ca paate bajaan almaamin mabba jaxu ba tey la tëjoon ak fina la ca paate bajaan tey ngay tëj fii ci ensemble bi xanaa du xanaa azar amut Moustapha Ba dañu lay wax tey li nga def fii ci ensemble bi ak liggéey gi nga yàgg liggéeyal Sénégal gi il faut Sénégal xam la yow il faut que Sénégal bàyyi la xel yow Moustapha Ba ci yeru gi ci personnalité bi ci nite bi ak xam-xam bi xam-xam bi li tax président Macky Sall teg la fii la teg ne naa leen du fal kangaadoo du fal bal de puy de du noonu la ko tuxul di waxee mu monsieur le ministre sa yar ak sa teggin ak sa yemale moo tax waa bor be bu ñuy wax danoo xamut li ñuy wax de yow danga nit ku am classe nit ku am personnalité ku Sénégal soxla yow yaw Moustapha Ba yow Sénégal dañ la soxla yow ñu lay ñaanal bëgg ñu laa catu nag dañ lay ñaanal wér yàlla nga gudd fan yàlla nga dund yow Moustapha Ba te ànd ak wér ndax lii may wax nii yéen député yii yëpp yéen a ngi wax ci seen xol amin ndax nag bu baax du weesu mbaax te luñ la mën a wax rek mooy dangaa baax président Macky ma noon na laa jox li man de booy compter chiffres man damay jommi man lii ci ay chiffres xam-xam rek a koy joxe dama ne la dama ne la président Macky Sall ku mu fal ci réew mi dangaa ñite yoonu yokkute bi mu wax danga ko dëggal fullaal ko faydaal ko ba nga xam ni booy wax Sénégal gépp dañ lay jox attention yàlla nga gudd fan salut laa lay defal ak ñu daan def parce que yàlla nga gudd fan kenn du yow